taxawaay ak engagement bi nga xam ne moom la am ren day jaadu bu kilifa yi taxawee ñu wax leen ko ak liggéey bi lan moo ko agsil fii ndax liggéey bu yàgg la ñu yàggal yëngu ci wàllu social ak développement ren ñu waxtaan waxtaan wu yàgg wu yaatu ci nan lañuy def ba saa su ñu amee loo xam ne dañ koy taxawal kilifa yi ñuy seeti ñu ñu siy taxawu nan la ñuy def ba ànd ak ñoom soxla yi nga xam ne am nañ kenn ku nekk xam na ne dëkk bi li fi nekk ci ay coalition bari na te ñu ngi jëm ci ay échéances yoo xam ne ay élection la ñu ne fi ñu jëm nii nañu waxtaan xool bis bi ñuy am kan ak kan lañ koy tuddee ñu déggoo si nañ ko tuddee kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk te nekkal fi Benno Bokk Yaakaar moo tax ndaje mi tey ngeen gis bu paasee conseil départemental bi amul beneen kilifa boo xam ne tuddee nañ ko ko wala woo nañ ko ci bu génn Benno Bokk Yaakaar loolu engagement bu ñu jël la ak lu ñu ci mën a fekk ñu waxtaan ba déggoo si di wax nag ne li nga xam ne ñoo fi teew ci ay soxna te bokk ci kuréel gi nekk seize regroupement yoo xam ne engagé wu nañu ñu waxtaan di liggéey ak ñoom am seize boo xam ne fa la ñuy daje. di former jigéen ñi di leen dimbale si li nga xam ne mooy suñuy moyen ba kuréel gi taxaw tey ci pertement bi nga xam ne doon na am diggante Kër Baye Laat ak Ndaamaatu ci côté benn Bokk Yaakaar ñu indi suñu participation ba pertement boobu dakk loolu engagement bu ñuy jël la fii tey bu fekkee ñi nga xam ne ñoo fi nekk te nekkal fi benn Bokk Yaakaar taxawaay boobu nga xam ne engagement boobu nga xam ne jël nañ ko pare nañ pour jàppale ñu si loolu moo tax ñu jël ñi nga xam ne ñoom ci ñoom lañ ci invité am na ñoo xam ne nag gisuñu leen gisuñu it seen ndaw xañ na xat wala ñàkk a jàpp wala programme yu dajee moo ko waral mais ñun engagement bi ñu jël président Macky sàll moo tax ñu jël ko te fexe ba liste bi nga xam ne aussi liste Benno Bokk Yaakaar bi loolu moo tax ñu def ko kuréel gi nag 2005 ba léegi ñu ngi koy def ci ndaamaatu ak gox yi nga xam ne bokk nañ préciser mu leer mooy ñi bokk ci mouvement bi tënkuwul ndaamaatu kese tey soxna Isa bi jiite jigéen ñi Lansar la dëkk am na Baxdaat 2 am na ñu dëkk ba Ndindi am na ñu dëkk Kër siñ ñaan am na ñu dëkk ndaamaatu am ñu dëkk ngelamu kuréel la goo xam ne fas yéene nañ ko yaatal partout ci senegal ci développement ak social ak taxawaay bépp boo xam ne waxtaan nañ ba déggoo ci sëñ bi euh, soxna yi nga xam ne ñoo dëkkee ndaamaatu soxla nañ ay formation professionnelle soxla nañ financement xaaj na dégg nañ li ngay def waaye bëgg nañ ku leen taxawu jàppale leen si ndax nag ñun dégg nañ leen ko mais néewuñ dañ leen koy may li ñu leen wax mooy dañ leen koy wutali si kilifa yi nga xam ne ñoo ko am bëgg nañ ku leen defal formation ñoo sol seen dàll ñëw ba si mouvement bi sàkk ko si ñun bëgg ku leen defal formation ñu xamal leen ne dinañ dem ci kilifa yi wutali leen ko te buñ ko amee incha allah dinañ ko indi soxla nañ tamit ay financement ndax am na ci kuréel yoo xam ne yore nañ ay kees yu ñuy wax trois clés dem ba seen euh, seen budget dépassé trois millions quatre millions kon ñooñu ñi ngi si yoon soxla nañ ku leen former jàngal leen wan leen nu ñuy liggéeyee ak organisation boobu ñu am nan lañ koy exploiter c'est parce que ñun bi ñu déparé li jiitu woon si liggéey bi mooy organiser leen ubbil leen ay kees trois kele yëkkati li nga xam ne moom lañ am ci ay moyen jox leen ko bariwul mooy wutal leen ay ay carnet wutal leen ay cahier beneen bi tamit mooy nan la ñuy def ba organisation yi ñu am mu bañ leen a rëcc moo tax ñu bëgg tey ji kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew ñu jàppale leen xool jigéen ñi geestu leen dimbale leen ci wàllu financement ndax ndaamaatu quartier bi ëpp jafe-jafe ci Touba ndaamaatu la tey ci bëccëg maa ngi koy wax koñ boo xam ne lu toll ci téeméeri borom kër tëj nañ seen kër génn ñii ñi ngi si ca sancaan yi ñii nekk si condition yu métti ndax lan ab napp boo xam ne ci suuf lay jógee di remplir fonds yi di remplir néeg yi loolu xañ na kilifa yi ñi ngi si taxawaay yi mais bëgg nañ ndox mi suñu ko pompee ba pare ñu am ay kilifa yu taxawu leen bañ am kàttan goo xam ne dinañ mën a dellu seen kër yooyu ndax kër yi yàqu na yenn yi ndox mi daaneel nañ ko yenn yi miir yi yàqu na matériel yi yàqu na jafe-jafe yi dellu fa presque defaraat kër la si ñoom te borom kër boo xam ne bi nga génnee pour nga mën a fay problème la dellu si waat sa kër jafe-jafe la. loolu ci li gën a sas kuréel gi la bokk ndax seeti nañ leen waxtaan ak ñoom di leen taxaw di leen encouragé tey it bëgg nañ kilifa yi jàppale ñu ba téeméeri borom kër yooyu ñu recensé gis leen ñu taxawu leen dimbale leen fexe ba delloo leen seen kër ndax jafe bu mag la. kuréel gi mi ngi leen di jaajëfal képp koo xam ne wuyu si nga nga sori nga jege mouvement ànd aar ñu moom mi ngi lay jaajëfal ñi ngi ñaanal ñëpp. lii nag bi ñu dajaloo waxtaan ne dañuy sos mouvement ànd aar ñu ak moom booba ak léegi si juróom-ñeenti at la ci ren sa juróom-ñeenti at yooyu xëy na réalisé nañu fi lu bare bëree bëri waaye dafa nekkoon kuréel goo xam ne dañoo toogoon suñu roq di def li ñuy def sa booluñu si coow. bi ñu demee ba nga xam ne nag xam na ne kuy def lu baax dafa war a yaatu ci noonu te leen doog sol suñu dàll jug ànd ak mouvement bi seet ñi nga xam ne dañoo doon ay kilifa ni ci dëkk bi la ko dale si monsieur le maire Abdou Ka demoon nañ fa jox nañ ko lettre am egg nañ ko ko waaye nag xay na dafa agseegul mais gisuñu ko kon ñi ngi sant bu baax Euh, euh, waa waa waa monsieur waa maire ndax ban fa day dalal nañu bu baax wax dëgg yàlla jox nañu suñu lettre wax nañ leen li ñu tax a jóg loolu def nañ ko ba nu fa jógee tamit dem nañ ci sëriñ Mbacke sëriñ Gallas Mbacke Kaltoom nga xam ne mooy tedd liste si Benno Bokk Yaakaar jox ko lettre wax ko mbooloo mi ak fi ñu jëm ak li ñu bëgg mu ànd si ak ñun xamal nañu ne damay fekk Casamance waaye bi soobee yàlla dinaa yebal délégation kon la waxoon def na ko sëriñ Cheikh Abdou Bali ba ñu fa demee seeti ko moom it mu recevoir ñu fële ca permanence am kontaan ci délégation bi dalal ñu ak yu ak yu am solo xamal nañu si bis baax may teewal boppam kon la mu waxoon kon appliqué na ko def na ko mi ngi ni toog kon dañ koy sant bu baax ndax nit su xewlee bisam woo la gestu gis la kooku amatul sa fay kon sëriñ Fall sëriñ Cheikh Abdou dañ la ciy ber sant bu baax a baax di sant tamit Serigne Alaaji Ndiaye programme euh, sant nañ ko baax ndax moom it dañu dem ba këram jox ko lettre en tant que responsable mu teew fi ngir mouvement ànd aar li moom kon moom itam amuñu fayam ñi fi jaar bari na waaye nag ñu limee mën nañoo guddal sa dañuy wax ne li si nag wi xaju si cin li damay dellu si waat sama mbokk yi nga xam ne ñoom laa bokkal mouvement ànd aar ñu moom yàlla dogal ñu wóolu ma jiital ma def ma président mu doon loo xam ne xëy na defuñu ma ko ngiri at defuñu ma ko ngir xam-xam defuñu ma ngir leen dañ maa seet doyloo ma def ma ko mu nekk loo xam ne dama leen ciy sant bu baax parce que yéene ànd ak ñoom def ci ba def ci lu ma ci mënul ndax yaa ñu doy dafa doon loo xam ne yombul ba ñu jegee si noonu ànd ko ak coordonnateur Talla mii muy jàmbaar lool moom itam ñu ànd liggéey bi depuis ay at yu bare bari ànd ko kii nga xam mooy Xaadim Seck ak Baba Gueye mii di secrétaire général trésorier bi mu ngi ni dend ak man di Ibra Seck Bara Gueye mais mooy commissaire au compte ñi ngi ko ànd ak nag waa ndaamaatu gépp ak li ko wër bi nga xam ne suñ borom dogal na ñu sol suñu dàll seet nañ fukki mbootaay ak ñeent yoo xam ne dem nañ waxtaan ak ñoom si mouvement bi waxtaan ak ñoom si fi ñu bëgg jëm ñu xamal nañu ne fu ngeen jëm ànd nañ ci ak yéen lu ngeen nekk ànd nañ ci ak yéen kon mouvement bi dañ ci rafet njortu te xam ne fii si corniche la juddoo Ndaamaatu te fi lañ fi bëgg a jëmmale lépp lépp luy def si ay activité fii lañ ko bëgg a defee tamit kon ñu xam ne amuñu lu dul mouvement bi mouvement bi nag dafa doon mouvement boo xam ne xëy na ku ko dégg sa xamoo dëgg dëgg yi mouvement bi da nga jàpp ne bi mouvement bi dugg si terrain bi politique la fekk mouvement bi politiqueul dafa war a leer parce que nit bala nga jug ne da ngay politique da ngay gis li tax nga war a mën a jug ne da ngay politique bi social ak développement moo ko tax a jóg dañ koy wax mu ko mu leer parce que tamit ay kilifa boo leen wooyee ba ñu toog da nga leen wax fi nga jëm waaye soo leen wooyee ñu toog nga layaam layaam yi bëgg lu neex ni tax nga ne ko ñun dañuy politique APR la ñu nekk lool nañ ciy bàyyi xel en tant que man Baba Diaw APR laa nekk waaye nag mouvement bi nag bu ñu ko jël di ko yóbbu APR ndax mu wax moo jiitu APR ndax mouvement bi mu jiitu APR amut loolu laa bëgg ñu xam ko mën naa am nag mu dem ba ci bi jamono mouvement bi nekk APR parce que mun te nekk amul waaye nag loo gis daf koy waxtaanee parce que mbooloo mi munu si leen orienté jëmee leen fu leen neexul kon nañu xam loolu baax a baax kon mu mouvement ànd aar ñu moom nañ ci def très attention tey jii bañ koo nekk di ko jëmale si askan wi di ko duggul foo xam ne nii dugguñu ci loolu. parce que fii ñi fi nekk kenn ku nekk dangaa am foo jëm kenn ku nekk da ngaa am kala neex nga ànd ak moom nit ki ne soo koy woowoo woo ko si li nga xam ne moom nga war a mën a àndam ci lii dëgg dëgg la nag moment bi ñu toll politique xew na. kenn ku nekk yaa ngi di sa ruq yaa ngi wut say nit sa mbooloo ndax man ba ma ñoree dama woote sama kër sama déclaration woote na jóge naa fa ma nekkoon maa ngi benn Bokk Yaakaar ak samay moyens ak sama engagement waaye nag nañu xam ne mu mbooloo mouvement bii mënoo jël mbooloo mépp ne leen da ngeen jëm ci benn côté wala boog da nga naxtaan ndànk-ndànk ba keroog ñu la koy nangul loolu lañu ci bëggoon a indi ci ay leeral ah, di sant bu baax nag di jéggulu tamit ci jataay bi ak toogaay bi ndax li fi nekkoon fii kenn xaju bi waaye guddee gi loolu moo waral ñu bare bari mujj oto yi delloo la ñu ñibbi ndax dañoo bàyyi seen i borom kër dañoo war a togg ay reer sa dafa xaw a guddi ak nawet bi ñu nekk loolu moo tax mu demee noonu kon nañu xam ne rek mouvement bi lii ñu leen wax noonu la demee ku ñëw tàllal ñu loxo incha allahu rabbi danañ ànd ak yow ci suñu condition yi nga xam ne mën nañ koo ànd ak yow ci kàttanu yàlla loolu moom moom la mouvement bi doxee ba mu juddoo ba nëgën si ci loolu la nekk ci ba nëgëri si kon ñu ngi jaajëfal bu baax kilifa yi fi teew di jege jaajëfal bu baax mairie mbootaay yi fi teew ak suñu mbokki jigéen ñi amuñu seen fay jaajë ñu ngi leen jaajëfal bu baax a baax waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu yéen waa mouvement bi maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm li ngeen wax nag dëgg la mouvement xañ ne mouvement bépp mouvement citoyen xañ na maanaam difficulté membre yëpp féete benn côté loolu c'est normal mais aussi mouvement sañ naa lëkkaloo ak koo xam ne jàpp na ne mën na ko jàppale ci ay programme li am solo rek mooy ki ngeen di seqal di lëkkaloo ak ak moom ngeen lëkkaloo ak moom ci loo xam ne intérêt mouvement bi la parce que intérêt mouvement bi mooy intérêt dëkk bi kon ci côté boobu man personnellement dama leen invité ñu continuer discussion yi continuer waxtaan yi seet naka la ñuy mën a lëkkaloo parce que participer ci li nga xamante ne bii mooy débat public bi joo sa loxo ci li nga xam ne mooy defar réew mi dafa nekk farata ci kenn ku nekk ci ñun ndax bu la yàlla mayee te yàlla may na leen loolu ngeen am ci ak xereñ am ci ak jublu am ci lu ngeen ci bëgg lay fulla ci yéen mooy ngeen taxaw wax la ngeen bëgg wax seenu jublu daal ne lii nag kër képp koo xam ne dox na jëm ci danañ la jàpp dañu ànd ak yow te foog naa ne jublu gi genn la bëgg-bëgg bi benn la mooy jàppale sëriñ bi ci dëkkam bi ba yenn jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund jafe yooyu wàññeeku certes difficultés yi bari na li ko sabab mooy li ko jiitu investissement ya waroon a am daa amutoon nga xam ne kon fañ jógee dafa suufe bala ñu àgg foo xam ne dana fës faw ñu def loo xam ne lu baree baree baree baree bare lay doon loolu nag mënees su ko def ci benn at mënees su ko def ci ñaari at li ci am solo moo di ñu tënk ko ci ay programme tënk ko ci ay këyit xam ne fii la jëm te at mu nekk danañ ci def loo xam ne nii lay toll loolee nag yéen moom ngeen war tax en tant que citoyen di ko saytu di xool ba xam ñu ngi koy def wala defuñu ko waaye heure bu nekkee ci wi rek foog naa ne jàppale gi war naa mën a nekk ndax bëgg genn la jubli genn gis naa ngeen ñaan fi ay financement ak ay formation fi mu yaxa ni tembe tey jii ñi ngi doon formé loo xam ne mën nañ juróom benn téeméeri jigéen yoo xam ne ñëpp Tuubaa la ñu dëkk ña mbaarum daaru xurus ma daa feesoon del ñëpp nga fa suba ku dikk da nga leen gis gis liggéey bi ñuy def formation yi bu soobee yàlla dinañu xool naka lañ leen ci mayee ndax ñu ngi koy def fi ñu toll nii tembe toll nañ ci lu mat junniy jigéen yoo xam ne formé lañ leen ci formation yoo xam ne musta am ci dëkk bi te bu ngeen laajee ñu ci bokk ñoom dañ leen seereel loolu ndax ñoom ñoo ko wax ci seen wàllu bopp yëmuñ ci formation yi bu ñu leen formé dañ leen di continuer di leen gunge wutal leen ay foire Màggal Tuubaa gi ñëw bëgg nañu def benn foire boo xam ne képp ku ñu formé woon da ngay defar sa produit ñu exposé ko wutal leen ay partenaires yoo xam ne ñooy jënd li ñuy liggéey mooy ci biir réew mi moo xam ci bitim réew la ndax ay borom doole lañ ci lañ ci lëkkaloon. bëgg nañ dimbaleen ba ngeen exporté États-Unis di exporté France di exporté Côte di jaay Ndakaaru di jaay Tambacounda di jaay fu ne ci biir réew mi bëgg nañu aussi développé marché bi nga xam ne moom ngeen seq parce que wax naa leen tey ne leen bu ngeen matee mille personnes junniy nit loolu am marché la kenn ku nekk mën naa defar jaay moromam te loolu dañ cee bàyyi woon xel bi ñuy def formation yi ndax kenn ku nekk lañ la jàngal bokkul ak lañ jàngal sa morom nga xam li nga defar sa morom dana ko soxla moom li mu defar yow danga ko soxla kon échange boobu day mën a am ci diggante yi lii mooy programme yi nga xam ne ñu ngi ci.